bataaxal ni yëf yaa nga amee ca tali bi nga xam ne moom mooy Touba Aliya foofee nag ay liggéey la yoo xam ne ñu ngi ko doon def gannaaw bi nga xam ne gas nañu ba am lu toll ci ñaari meetar ci la suuf si daal di mabb seen kaw ñoom ñaar ñooñee ñu faatu ca saas ya mu am ci kenn koo xam ne dafa amoon nii gaañu gaañu mujj nañ ko soowe ba yóbbu ko ca loppitaan ñoom ouvrier yooyee ñu ngi doon gasal ndox mi foo xam ne foofee la war a jaar muy ndoxu taw yi mu jëm ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci tali bi nga xam ne mooy tookoor ba loolee nag moom la ci Actu Sen yokk moom bataaxal la jot mu bàyyi ko ca Touba ca kanam mi nga xam ni ñoom nee nañu daal xalif général bi méttit lu na yëf yi bu baax a baax te di jaal njabootuk ñi nga xam ne ñoom ñoo lorule di jaalaale itam mboolem murit yi ci Seneweb nag luñ fa mën a gis mooy nataalu koo xam ne Njaga Sàmb la tudd muy gune goo xam ne dañ koo fekk te benn appartement ñu daal di koy faat site bi di ñu wax ni lépp loo xam ne dëgg la ci moomu la mbir boo ko liiree rek di ko ca fekk meneen dëgg ngi nii Presse Afrique moom di institut